mais, mais dernièrement gisuñu la Gabrielle qu'est-ce qui s'est passé. mais Gabrielle elle a des euh, liggéey day liggéey de ah. j'ai dash en fait j'ai d'autres chats à fouetter en fait xam nga les gens dañu foog ne. Mm-hmm. man euh, j'ai un pied ici j'ai un pied en France damay liggéeyi. damay wuti bitim réew di def ci réew mi ñi nekk ci réew mi ni nga ngawti ngawti yëpp li may def ci réew mi defuñu ko. mais ni j'ai un agenda j'ai un calendrier et puis j'ai aussi le droit de temps en temps d'avouer parce que nit ñi dañu xam bàyyi ba ma de temps en temps de dire que le petit bout de femme que je suis est fatigué de l'incompétence de certains fatigué du cynisme de certains fatigué aussi du manque de d'empathie de certaines personnes je suis émotionnellement fatigué et j'ai le droit c'est nit ñi dañu tàmm benn Gabriel boo xam ne damay toog sama kër jooy parce que li ma tu as tu as abandonné tu as Donc, déposé les armes je suis pas fatiguée je suis j'ai pas déposé les armes yaa maa wax waxu kaawu bi maa ngi ciy xam nga non le combat est xam nga la. mais Gabriel ci xeex. ba dara def ci lu dul le jour du procès. attends attends euh, li ma ci xeex non xam nga boo xeexee procès oui au procès ba procès. on a eu moi je me suis battue pour un procès. on a eu un procès. dem nañu procès ku nekk na nga jël di la yoon may. mais heureusement que je me suis battue pour un procès xam nga lan moo neex lu sotti am borom ñañ fa gis yëpp mës nga leen gis ña fa gis ñëpp est-ce que mës nga leen gis ña nga fa gis yëpp mës nañu hospitalisé Adji Sarr ña nga fa gis ñëpp fat nañu léegi nag boo fatee solal sang defar ba mu am courage dem procès sama jaan wàcc na lu ngeen bëgg leneen est-ce que c'est ça combat bu am rek ngeen Gabriel ñëwal li nga doon xaar ci procès bi yow parce que bon procès bi gis nañ la semaine passée même si quand même l'accusé n'est pas venu mu Ousmane Sonko finalement ay témoins dégg ak soxna Adji Sarr mais ñu bëri am na ñu jàpp ne sax déception la parce que mais c'est une grande déception moo tax man la personne n'a gagné xam nga man nee naa la personne n'a gagné parce que finalement ñun li ñu bëggoon amuñu ko Ousmane Sonko n'était pas là est-ce que finalement c'est un procès non il y a eu un goût d'amertume dans la bouche des gens parce que li ñu bëggoon xam dëgg bi ñu bëggoon xam duñ ko mës a xam parce que Ousmane Sonko ñëw fa. Mhm. Adji Sarr kese la ñu dégg son son de cloche on n'a pas entendu Ousmane Sonko donc on voulait un procès on l'a eu mais malheureusement. Euh, nañ ko bëggee woon amul nañ ko waxante dëgg aussi ah. Mm-hmm. nan lañ ko bëggee woon nan lañ ko bëggee woon. mais ñun ñëpp parti yëpp ñëw taxaw ñu déglu ku ci nekk ñu nit ay magum jëmm lañu. Mm-hmm. on n'a pas envie de savoir nan la timé booy bi ban heure la ça nous intéresse pas xam nga lan moo ñu intéressé. est ce que forcé loolu moo ñu intéressé. mais euh, Adji Sarr lii Ousmane Sonko nee na lii loolu lañ bëggoon dégg ñun mm-hmm. Adji Sarr ne ko yaa ma def nii mu ne ko defuma la nii yaa fa ñëw heure bi ñëwuma fa heure bi avocat ku nekk layal sa bopp dëgg la wala dëgg mais ñun on n'a pas besoin de euh, ce qui s'est passé